jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciranga ak poche def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi doon tontu tontul ndaw ñi te ki laajoon laaj bi di Idriss tontul ndaw ñi ci ñan ñooy ndaw lan moo di ndawe laaj boobu ci lañ doon jéem a tontu bi leen joxee kàddu gi ba xale yi jëlaat kàddu gi waaw kenn ku ñuy wax soxna sala waaw soxna sala daat ne euh, dafa am laaj bu muy laaj moom it daa def na commentaire yu yaatu waaw commentaire yi nee na mi ngi ko jëmale ci joŋe ak ni mu déggee jonge tey waaw soxna sala jëng <laughs> nee na ni mu déggee jonge tey bokkut ak moom li jàpp woon jonge ndax dafa defoon na jigéen ju jonge mooy ku mën a tagalu mën a musóoru mën a rëdd ay bëtam mën a rëdd am tuñam et cetera ndekete jonge kon yonent bi ci soññe xam na loolu mën na ko waaw naa la ci dooleel sax leneen mooy alayhi salaam nee na ku jo jigéen ju jóngewut du dugg aljanna luy loolu <laughs> mooy ku jóngewut dafa rëy jigéen ju rëy du jonge nogay fi ne mën naa toog fi mu toog jëkkër ja jóge ca dëkk ba ñëw tabarkàlla dugg ci néeg ba summi yéreem génn lalal boppam basangam teg fa teg ca ngegenaay <laughs> wutum ndox naan lépp na koy ko seetaan bu paree ba toog na bu doon ne ko ana waa dëkk ba ak ak toomu baat bu naqari loolu <laughs> loolu la na koy di def waaw xam na <laughs> bu dee jigéen ju jonge nag bu jëkkër wàccee da koy gàttandu léeg-léeg sax mu fekk muy fóot mu taqal ko saabu waaw taxal ko saabu tooyal yére yi waaw laxasu ko jigéen ju jógee mu ndaw lu ja <laughs> loolu ni mu jafee léegi am na ci kër yoo koy fekk nag waaw am na ci kër yoo koy fekk waaye yenn kër yi moom tabarkalla boo masaan dem bay naan sa sa jëkkër yi maa ngi maa ngi ñibbi wala maa ngi dellu it ndeysaan mu bënn ay bët ndeysaan waaye léegi si demal ti ñëw sax boo ko déggee santal yal na yàlla yërëm soxna Sala ginnaaw commentaire am yooyu ak yeneen daal ne dugg nag ci ab laaj mu ne ndaw ñooñu seen état bu dund mu ndax ñoom dañoo xëy rek daal di nekk ay ndaw waaw ndax dañoo xëy rek nekk ay ndaw walla dafa am nu fu ñu jaar di di kott kott yolli yolli ba agsi nekk ndaw loolu daal bëggoon na ci ak leeral euh, ñu ne ko waaw comme de noonu la yàlla na too nu jiitee réunion bi ah noo ciy jéem a tontu wuutu ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak bitim réew te déglu suñ jataay bii waaw ñu jëm leen cee tontu euh, soxna Sala dafa am saar wu yàlla tuddee ruum ruum wax ci mbirum xare bi amoon diggante ruum ak seeni noon te ñu gañe woon ruum ca ngañaay lu njëkk la ba metti woon seen seen supporters yaag ñu àndoon ñoom daan leen ñaanal defet bi metti leen ba sunu borom digg leen ab victoire saar wu am solo la tabarkalla waaye ci biir saaroo ba demee ba aaya cinquante quatre aaya cinquante quatre nga xam ne boo ko beenee cinquante quatre boo jëlee quatre bi def ci place su cinq jël cinq def ci place ki mu jox la quarante cinq waaw quarante cinq euh, jox la waaw comme ni waxtaanu pénc rek ma yemale ko foofu rek waaye daal yàlla dëxëñ ca wax ca lu am solo daf ne allahu la si xalaqakum min daaf yàllaa ngi wax ak ndaw ñi ma jël ko bëgg cee tontu soxna Sala Dieng ak mboolem ñu toog ci salle bi te bokk ci réunion bi moo xam aw góor lañ moo xam aw jigéen moo xam aw mag lañ moo xam ndaw jataay bi nag ndaw ñee ko moom waaye mag ñee koy taaral waaw ndax mat mag mën naa ba ci dëkk dëkk bu def ay ndaw yi kese du jag du jag hmm? du jag mukk ñii nekk la dañoo wax ne waaw ndeysaan ñoom njaayloo njaay ay ndeysaan ñoom njaay njaay yàlla na ko yàlla yërëm suñu xarit boobu njaay njaay njaay njaay nee na waaja dafa falu benn buur daat ne dafa bëgg penc moo xam ne du am ay màggat ndax yéen xale yéen ma fal te pénc mi daa war a neex te màgg ji dañ koy naqari daal di woote réunion ne xale yi reyal leen ma màgg di yëpp ngeen ñëw nu noose sunu dëkk xale ya kontaan ci lool jàpp paa yi di rey di rey di rey ba ak ci génn kër ñu fekk fa paa Mor Xujja ne ko ni ñu def sa morom yi lañ lay def dañ lay rey mu ne li may bëgg wax de moo ko waxee da ngeen defee ne damaa ragal dee waaye fi samay moroom jaar ba dee mën naa faa jaar ba dee waaw ndax bëyeeyam njëg ñu ne ko loo bëgg a wax mu ne gis ngeen bu ngeen fi reyee mag ñépp da ngeen toll bis boo xam ne da ngeen soxla mag du ngeen ko gis xale ñi ne da dafa bëgg a daw xale yi ne bëggut a daw ba benn xale bu am xel ne leen man daal su ma sañoon ñu def li paa bi wax bàyyi ko fi ñu daal fii bàyyi paa bi nag daa dem yóbbu ko ci ma ko làq ko fa <laughs> bàyyi ko ndaw yóbbu ko ci ma ko fa xale yi daal di ñëw ne buur dañ laa soxla daal dajeeg moom nag king fa de palace buur bi na naka mu ñu ne ko rey nañ paa yëpp mu ne ha ñu ne waaw rey nañ paa yëpp buur paa yëpp fi ne mën ngaa dugg dëkk bi nga wër buur na jarul wër wóor wóolu naa leen ñu ne ko rey nañ paa yëpp waaye paa paa Mor Khoudia Ndaw ma nga ñu bàyyi cël ma xam mbaakol waaye waxuñu ko buur dañoo cel rek buur bi ne la waaw kay jërë ngeen jëf léegi nag dafa am liggéey bu may liggéeylu mu bëgg ngeen liggéeyal ma ko sinon ci kaso bi ngeen jëm mbaa ngeen dee ni paa yi hmm? waaw ñu ne ko loo bëgg ñu liggéeyal la ko mu ne damaa bëgg ngeen tabaxal ma pale boo xam ne du laal suuf <laughs> pale boo xam ne du laal suuf ci jaww ji ngeen ma koy liggéeyal laa bëgg xale yi ñu jóge ñu jógee ci wàllu entreprise yeeg société yi te jàng lu jëm ci wàllu bâtiment ak nu ñu koy defee ñoom Dieng yal na yàlla sàmm leen ñoom Dieng yal yàlla sàmm leen te wërsëgal leen am xëy ndax seen xam-xam yi tabarkàlla waaye daal xale yi ne ko buur loo wax mu ne dama ne pale bul du laal suuf laa bëgg wax waxuma na ngeen samp ci pie teg ci pale bi bëgguma loolu pale bi ci boppam laa bëggut mu laal suuf du ay pie du ay canon xale yi jaaxle lool réunion jël ordinateur yi lu la ñu dugg ca lu la ñu dugg ca xale yi mënu ñoo fexe ba trouver lii buur sant leen am ko leen ne ne booy ñu naa mu ne mais y a quelque chose ñu ne lu xew ñu ne suñ paa ba morku ndaw ca cil ma mbaakol nañ fa dem ñu ne ko non yow paa yi dañoo jàng yooyu mu ne eh <laughs> waaye dañ fa dem mu ne gis nga waaye ba saa waay buñ fi yàq essence di dem ay cël ma xam mbàkkul paa paa yi jànguñu lu affaire yooyu benn xale na leen paa yi jànguñu affaire yi mais comme moom moo ne woon nañ ko fi bàyyi nañ dem seeti ko rek xale yi def délégation daal di seenu ñàq ci paa bi paa mu ruxu jë mu dalal leen may leen njarum soow may bisaab waaw xale yi naan tubaarkàlla daal di julli tisbaar waaw daal di noppi nag boole ci takkusaan paa Mor ko jëne lu doon see tànk ñu ne ko buur daal <laughs> def ne le lañu may dernier dele ñu tabaxal ko pale boo xam ne du laal suuf loolu daal moo nu jaaxal ñun dugg nañ ci internet bi fu nu dugg nañ fa naka la ñuy tabaxale buur pale bu du laal suuf xalaatoon nañ sax ne dañuy def ay pied mu ne déer pied yi kon laal na suuf waaw góor ga ne leen jërë ngeen jëf ci seet si bi ngeen ma seet si waaye jërë ngeen jëf ci bàyyi ngeen ma fi bàyyi woon tey jii laa leen di amal njariñ xale yu jubbantiku ko mooy leen ñun mooy leen bu ngeen demee njaay loo njaay mooy nettali bu ngeen demee ngeen ne buur pare nañu jënd nañu fer béton ciment loolu lépp jënd nañ ko ndox mi mat na gaa yaa ngi nii tuuli yeeg martu yeeg peel yeeg pikk yépp a ngi fi ñu daal benn affaire lañu am mooy rëddal ñu rëddal ñu fi pale bi di jaar waa fi pale bi di jaar daal lañ bëgg plan boobu nga rëddal ñu ko ci jaww ji <laughs> buur xol ba mu yàgg mu ne yéen xam ngeen réew leen paa yëpp <laughs> allahu akbar buur nel yéen ñu ne ko ah kay mu ne non réew leen paa xalaat bii ngeen indi du xalaatu gone waaw xalaatu mag la xale daa de daa di comprendre mag man naa mat naa ba cim réew mag man mat naa ba cim réew mhm. gis nga loolu bu ñu ko déggoon mag mën naa ba cim réew bu ñu ko déggoon kon médiateur médiateur la république Seydina Ali kon liggéeyam gën a yomb mag mën naa ba cim réew suñu ko déggoon rekk mu gën a yomb kon entreprise yi mag ñi ci doon liggéey ak société yi mag ñi ci doon liggéeye ak rajo yeeg yi mag ñu ci doon liggéeye te retraité léegi kenn du leen bàyyi ñu dem ndax mag mën naa ba cim réew xalaat bii mag mag mi indil gone yi moo tax euh, gone képp munta doxal mag képp munta doxal moo tax nga dégg sunu borom ci laay ji ma ji may jàng allahu la si xalaqakum min daaf bankal sa baaram soxna sala thumma jaala min baadi daafin quwa bankal sa baaram thumma jaala min baadi quwatin daafan wa shayba yaxluqu ma yasha wa huwa al alimul qadir loolu mooy sa tontu soxna sala mooy yàlla nee na dafa bind daf noo bind min daaf ci néew doole départ ñépp néew doole wax la ko tey waaw départ ñépp néew doole allahu akbar wulida judd na ku juddu ab liir ab liir sas al ci cere ba mu ne ab leer walla ak leer mu ne wolof moo mu amul arafu araf mu moo jël araf fa ima la ko daal di ko tuddee leer mais liir liir mooy leer ndax dara nekkagul ci moom ci lëndëm yàlla mu ne foofu lañ déparé soxna sala bu dee jigéen bu dee góor liir rekk lay tudd bu bis ba dellusee ñu nodd ci noppam day joor li xam ci bu càmmoñ bi daal di Alioune Sall waaw walla ñuy nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci bu càmmoñ ba daal ne nogo yi <laughs> la la la ba def mën a ko li nga def kenn mësu koo def waaw soxna si daa am ay cheikh <laughs> mu yët ilimaan ku góor ko ne ko tuddee ko ayun sàll yët ko ku jigéen ko ne ko tuddee ko nogo yi ma néew waaw day sànni ñaari <laughs> daal kenn ko nogo yi tudd kenn ko Alioune Sall mu néew taal naa suma waxtu dem ma nga ca ginnaaw mbar seeti seeti bébé ya ndeysaan waaw may dem ne damay damay yóbbul sëriñ Alioune Sall mais nogoy moom ko yóbbul sëriñ nit ñi jàpp ci <laughs> ma commencé mere bébé xaat nit ñi jàpp ci ni ma <laughs> naa def <laughs> waaye koo gis rek hmm? waaye allahu la si xalaqakum min daaf yàlla moo le moo ñu bind ci daaf daaf mooy mënoo dara daaf mooy mënoo dara allahu akbar ñuy boot di wàcce di sànn di tëral di yëkkati di sang di solal rekk benn at mënoo dara ñaarlu at ba ngay tàmbali jéem a jàng taxaw ñetteelu at ba ngay tàmbalee dox ñeenteel ba ñu yóbbu la jardin ñu yóbbu la jardin léeg-léeg yóbbu la jardin yoo xam ne la nga fay jàng dara dara amu ci solo ay tonton lañ lay jàngal ak nu ñuy lekkee bon ah ay le ak euh, rek yooyu lañ lay jàngal ba pare booy dem école bi li koy wër lépp ay till la ay golo ay sikóor saak bi ngay gàddu ñu def ci golo yooyu tableau bi am ko nga ne ci diggante boobu nag ñu la baaxal daafu boobu la yàlla wax ne bu fi nit ki tollee timmul loolu boppam dara dañ koo manal ku ñu manal fexeel leen ba manal ko ba bu ëllëgee mu mën a manal boppam waaye bàyyi ko ba mu màgg nga naan defoon naa ko nii ak wutalu naa ko ustaas ak jàngal naa ko déedéet allahu li si xalakum min daaf googu mbokk yi nit ki mënul boppam dara lu mën nañ ko koo manal kon nag nañ ko mënal ba bu ëllëgee mu mënal boppam dara ba mën a am lu mu def waaw tubarkal la sunu mbokk ma euh, ustaas Mouhamadul Amin Donde isaan allahu akbar rahmatullahi ali nee na ku nekk fu jeex tey jeex jëm fu dul jeex te doo jeex te bëgg faa yóbbu lu dul jeex ndeysaan mu ne boo nelawee amoo xel mu ne amoo xel moos boo nelawee amoo xel kon yàlla moo bind nit moo bind nit ñi min daaf mu ne summa dégg baat bi summa baatu summa mooy diggante bi mu nekkee mënul dara ba ni mën a dara mooy summa fukki at ak juróom jaala def na min baadi daafin ginnaaw néew doole googa xuwa kàttan néew doole gi xewwi na léegi kàttan a xew daafu moo xewwi xuwa moo xew xuwa googu xuwa googu léegi nit ki am na fukki ak juróom jàpp ñaar fukk léegi tàmbali naa mënal boppam waaye jamono ngi ñëw summa jaala min baadi daaf xuwatin daafa xuwa gi xewwi daafu ñëwaat ah soxna Sala seetlu loolu seetlu lool yéen jeunes yi toog ci salle bi yépp ak ñi indaale seeni parent yëpp ak ñi teew pour rafetal salle bi ku ci nekk ñun bu ko seetloo rek gis ko waaw sëñ Muntaxa dafa mësa waaraate wenn waaraate ca poroxaan ja magalug poroxaan ya ya yàlla nañu fekk buy dem yàlla nañu fi bàyyi mu ne ndax seetlu ngeen fii nu toog barab bi waaw loolu ay yëg-yëg la ndax seetlu nañ fi ñu toog barab bi ñëpp ne tekk mu jàng laay ji allahu la si xalaqakum min daaf mu ngi ci barab bi summa jaala min baadi daafin quwa mu ngi ci barab bi summa <laughs> jaala min baadi quwatin daafa mi ngi ci barab bi wa shayba mi ngi ci barab bi ndax lan yaxluqu ma yasha barab boo toog nag boo ko seetloo rek ñett ñëpp a ngi fi daaf xuwa mooy xale yi nga xam ne mënul guñ dara ku dem dañoo ŋàbb ci seen loxo ñu seetaan si xew mi ndeysaan ñu si xew mi waaw dem ba mu yàgg tabarkàlla mas naa ko suñ mbàkki si la ne ko man de julli naa ajjuma tey jumaay Tuuba mu ne ah, mu ne ma ne ko nekku mu woon Tuuba mu ne ma lu xew nag suma xel daa dem ci suma daan màggal si doxe mbàkki ànd ak ñoom Mamadou Biti Ñang ak ñoom Pape Ñang ak gaa yooyu ak Pape Jéy nu ñëw fañ daan yem ndeysaan nooy nu dem ba mu yàgg nu bokk ci ñuy buuxante ñu dem ba mu yàgg nga ñëw bés ñu ne xaajal leen ko mu ñëw sëñ Mbàkke daal di xëm ndeysaan <laughs> te sëñ Mbàkke daal di xëm door a yëg nag eh, li tax ma ne ko nekkuma woon ci jàkk ci waaw maa ngi woon feneen di xalaat jamono yooyu allahu akbar te te ni may dale la leen dale la dale ñépp jataay boo toog am na fa daaf am na fa quwa am fa daaf daaf bu njëkk bi mooy xale yi agseegul quinze ans xuwa bi mooy ñi nekk quinze ans te agseeguñ cinquante cinq daafu beneen bi mooy ñi am cinquante cinq jëm ca bejjaaw ndeysaan jëm ca bejjaaw ndax de yàlla yaxluqu maa yashaa ni ko neex lay def penc mi léegi nag soxna sala bi nit ki jógee ci daafu te jëmaat ci daafu te àggagut mi ngi mi ngi taxaw ci fu ñu wax xuwa benn intervalle bu am solo mooy mi ngi taxaw ci xuwa xuwa boobu mooy étape bi xuwa boobu moo di jeunesse xuwa boobu mooy ndaw boo ci tollee loo jàng xam ko boo ci tollee koo songu daan ko waaw boo ci tollee loo bañ mu deñ maa la ko wax de boo ci tollee lu bëgg jot boo ci tollee boo ci tollee waaye xuwa boobu ndekete yàlla daf koy able moo tax fu ma jaxale yi ñëwaat yàlla da koy able waaw da koy able ay at ngi ñëw ak i fan mu jëlaat ko waaw waaw mhm. <laughs> fi ne boo toogee cib jataay xaaji Mansour Mbaye fekk la fa yàlla na ko yàlla yokk wér hmm? sa yaram daw ndeysaan waaw daw walaay am ci mag ñit bu ñu la fekkee sa yaram daw ñoom góor gi baarut yàlla nañ fi gën a yàgg waaw sa yaram daw daan toog sunu suñu waajur ya sunu maam ya ba mu yàgg nga séen leen ndeysaan ñu ngàbb bant di sukkootu waaw ñu ngàbb bant di sukkootu allahu akbar mbokk yi loolu jaar naa xalaat jaar naa seetante lool waaw mas naa dégg ku ñu wax faatu géwël <laughs> mu ne sama ñaar yee ñett na <laughs> ma ne ko dana ñeent faatu dana ñeent mu ne li ma jege woon sori na ma mën na ko dana gën a sori mu ne li sori woon jege si na mën ne ko dana gën a jege waaw rekk tabarkàlla faatu faatu géwél la tudd moo ko doon wax siit tit waar na nu ñun ñëpp waaye war na cee waaro war na cee faatu war nga cee waaroo de waaw yàlla nu yàlla dimbali waaye <laughs> laay ji soxna sala nun ñëpp nañ ko yendoo étudier ana ñun ñii di wax yéen ñii déglu gone yi ci saal bi ku ci nekk ci ban ban étape la tollu ndax min daafin ju njëkk ja ca nga toll waaw ndax xuwa ji ci nga toll ndax min baadi xuwa ci daafa ju mujj ci nga toll ndax bejjaaw tàmbali naa ñëw ah ki koy indi yaxluqu ma yasha wa huwa al alimu al qadir al alim mooy ki xam lépp al qadir mooy ki am kattan ba ku nekk ma man laa nattal quinze ans cinquante cinq cinquante cinq jëm kaw mbokk yi réunion bi jeexut réunion bi jeexut dañoo war a jël pause incha allah te dellusiwaat ci <laughs> incha allah xëy na bu ñu jël poose lundi la ñuy dellusi ci jataay bi bu ñu dégloo waxtaanu fajaru vendredi samedi ak dimanche. jégalu soxna yi jégalu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàjjal xibaar tubaab firiñ fàjjalul ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di c s yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara naan dalan coxtaan moo de seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha ma tatatu wa ma tawfiqi